waa lamb moom comme niñ koy waxee rek comme yi ngi fi lim yëpp mooy entraînement première chose entraînement la ku nekk ak niñ la yabee daal combat bi moo ko jëlee ñu bëri dañ ma ne woon waroo ko jël ndax dañoo jëloon lépp jox ko jamteeri dëgg la xëy na am na li ma denc loo xam ne génnagul mais keroog xëy na ay détails moo ma defloo erreur boobu noonu te ba léegi maa ngi topp li ma yoon may dugal naa sama recours incha allahu rabbi dinaa jël sama ndam. yow da nga jàpp ne Diam Terry dafa daanu. non dafa daanu. dafa def quatre appuis. non non deful quatre appuis. lu mu def bi ma waree ndomb bi muy bale sama tànk dama ko jéggi bi ma ko jéggee moom léegi dafa faussé sama tànk bi maanaam fekk fa tànk bi ba ñuy dem suuf fekk na mu teg cuisam bi cuis bi ñëwee man bi may teg sama tànk ak sama loxo mooy xam nga deux appuis laa teg. bi ma tegee sama deux appuis fes bi ñëw na looloo ko may résistance boo man dafa tourné waat ñëw sama kaw man ba boy ba ñuy naan daanu naag daanuwul boobu man maa ngi ak deux kon dafa toog ba pare doog a ñëwaat sama kaw. mais ka même même bu fekkee ni que victoire Diam euh, Terry dañ ko dañ ko confirmé ah euh, mba maanaam maanaam amateur yi bañu keroog li nga def mooy keroog da indi ngar mi indi jom indi fit indi fulla amateur yi d'accord. yoonu Jet Li ginnaaw Diam Terry lan la. waa xale la bu nekk ci làmb làmb yaakaar ko rawatina Pikine ginnaaw raay moo tax keroog xam nga ñëwee noonu boo xoolee sama ñaari làmb yi mujj yëpp depuis ci Baara Ndiaye ak léegi dafa am neneen nu ma war a taxee ci. keroog bi dafa saf sap keroog. waaw loolu mooy wane ni war naa mën a dem fi gars yi nekk parce que maa ngi bëgg a yàgg ci yoon bi te xam nga tey jii ñi nga xam ne ñoo war a jël bëreeg ñun dañ ñuy moytu. comme ñaan non mun a guma citer kenn loolu dama koy bàyyi sama staff. li ñu nekk suñ ci paree dinañ wax kan lañ bëgg a bëreel waaw. mais xale yaa ngi fi ku ci mel ni ay ñoom Gamou Gueye wala doo laal ak ñooñu. ku ci mel ni ñoom Quench doo laal ak ñooñu. Gamou Gueye damay ñaan yàlla soq daan ko champion la nag mais damay ñaan yàlla mi dara tëwul. soq war a soq ko combat. non yooyu yëpp mu ne gu ma cee prononcé dara parce que fu mu toll nii daa am ci luñ nekk. ci lu ngeen ne. waaw maanaam recours bi moom garaawul. parce que même bu ñu la joxaatee victoire champion du doon victoire bi la gënal. dëgg la mais tamit victoire du ndaw daf ma daloon ci laay Pythagore dafa teg kat appui ñu ne ma dugalal recours man leen noonu victoire ci géew bala la safe mais après loolu day bokk ci li limu palmarès bi moo taxal ma topp li ma yoon may dinaa ko jël incha allah. mais daal na gars xam ne que Jet Li ñëwaat na maanaam la le chinois ñëwaat na Jet gis nga li ma mobiliser keroog. gis naa ko maa ko gis Seydina Mohamed bu ma ñaaree day gën a pire. kon li ngay ci ay kurpañ da nga koy da nga koy dublewaat maanaam damay dem liggéey rek fekk boogaa fale fi mu nekk xam ba mu tegaat ma ci code bi ma ne newoon bu yokkul du ñeew incha allah jërëjëf jërëjëf kilifa